ku wérul du ba am lu jox du nit ki ko di hmm. def di ci am tuyaaba asalaamaaleykum euh, sama xalaat ñi ngi leen di nuyu di leen euh, ziar baax di leen fatali yeen ngi sen programme huile essentielle de la semaine comme ni ngeen ko xamé dañ fi dal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga Bio nek tradi praticien nek fele ci diwanu keur Massar chaque semaine dina am benn huile essentielle boo xam ni dina ñëw wax ñu maanaam ay njariñam ci wàllum wér-gu-yaram euh, semaine bi nag professeur indi ñu huile essentielle u euh, pamplemousse voilà bee passé ñu ngi woon ci beneen fruit boo xam ne mbokkam la. Mm. <laughs> voilà <laughs> tey ñu ñëw ci pamplemousse. professeur kon ginnaaw bañ la nuyoo ziar la bañ a guddal euh, pamplemousse huile essentielle am maanaam lan lay faj ak nan lañ koy jëfandikoo. salaamaaleykum <coughs> wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziare. di ziare mbokk internet yëpp di leen nuyu. Euh, comme ni ko waxee rek huile essentielle Pamplemousse. Euh, moom la ñuy ñëw tey pour wax leen ci yenn njariñ yi nga xamante ni eh, làmboo na ko wala yenn njariñ yi nga xamante ni xam nañ ko am fa la suñu xam-xam yem. donc mu nekk boo xamante ni baax na comme surtout ci wàllu cosmétique. parce que baax na ci chute chute des cheveux. waaye naam ñi nga xamante ni seen karaw day ruus wala muy wadd wala muy damm ak yu demee noonu. muy surtout suñu mbokk jigéen ñi général. am na sax ñu wax ni baax na ci leel même ñi nga xam dañoo leel sax. buñ ci essayé xëy na du ñàkk ñu am ci quelque résultat mais leel nag moom dafa nekk beneen affaire boo xam ne moom. beneen yëfu boppam la boppam la wax <laughs> waaw mi ngi noonu mais mu baax na ci euh, karaw daal. ni ñu ko mën a waxee en général. baax na aussi ci ñi nga xam ne dañu am problème dépression. moom huile essentielle complément bi baax na ci. baax na aussi ci ñi nga xam ne dañu am problème mu surtout nerf sciatique ak yu de donc ci aussi ci perte de poids. manam day favoriser perte de poids day joxe perte de poids. y ki am perte de poids manam day day <laughs> ci donc non lay demee donc jeexalaate la bo xamante bu bax la. day protéger aussi cerveau bi. moom day nek un protéger euh, protéger le cerveau. Mhm. day stimuler ce qu'on appelle la digestion. maanaam boo lekkee aussi. Mhm. day tax moom mu gaaw a rees. Mhm. bokk na ci huile essentielle yi nga xamante ni bokk nañ ci la digestion. Mhm. bokk na ci huile essentielle yi nga xamante aussi day defaraat fois bi. ak rein yi aussi. donc baax na ci fois baax na ci rein. rein waaw surtout de moom lu jar a fonk la waaw ñaar yooyu baax na moom. bari na trop problème day aussi li ñuy wax les douleurs musculaires et articulaires. maanaam ñi nga xam ne dañuy amee douleur ci wàllu yax. ci muscle yi ak ci. maanaam articulation yeeg yu demee noonu. donc moom it baax na ci lu baax ma lu baax. baax na ci aussi li ñuy wax fatigue musculaire. maanaam bu fekkente ni muscle yi dañoo fatigué wala dañoo sonn dañoo am coono ak yooyu baax na ci. day favoriser aussi l'appétit. maanaam ñi nga xamante ni xëy na mënuñu woon lekk. wala seen lekk bariwul. suñ suñ koy jël tamit yàlla mën na def ñu commencé di lek ndànk-ndànk ñi nga xamante ni tamit dañuy bëgg a perte ventre wala ñu bëgg seen biir ci xaw a rës tuuti maanaam borom biir yu rëy yi wala yu am ngelaw yeeg yooyu hmm. oh, baax ci en général hmm. baax ci aussi ñi nga xam dañuy amee cholestérol cholestérol cholestérol huile hmm. eh, essentielle pamplemousse mos na ci baax ci aussi ñi nga xam ne am problème vision problème mu eh, xool waaw gis-gis daal donc pomp huile essentielle su baax na ci mais nag ñoo xamal leen ni foofu tamit benn entre parenthèse mhm. muy que ni waxuñu nii da koy def ci bët yi mhm. waaye da koy naan da nga koy consommé mu am jeexital ci bët yi waaw kay waaw mais boo nee vision rek tam ngir nit ñi ñëw ko donc loolu aussi jar di leeral. Mhm. kan du ko jël dem pàccal ko mat a leeral la parce que boo nee baax na ci biir rek am ñoo xam ni. li olof di wax danaan téel damm na fekk demeewul noonu donc yooyu daal en général moom xam nañ ko ci huile essentielle ou pamplemousse nga xam ne mën na ko def ci yaramu doomu aadama bi loolu baax na macha allah loolu hmm. moom vraiment surtout bi nga waxee ci problème mu rein waaw rein yi ak ak sax kay voilà hmm. parce que problème la boo xam dafa commencé xaw ma nag daa am lu koy joxe ci dëkk bi lu nit ñi xamul wala mais dafa commencé bari dafa bari waaw comme jalis jalis jalis daal bari hmm. trop trop trop te l sérieux la parce que aérien moom nit bu ko bu doxul normal rek moo mu kër bu doxul ñoo yem. ñoo waaw waaw xam nga foofu Pape toujours euh, il faut ñuy sensibiliser nit ñi. Mhm. il faut tamit ñu leen di wax li mën a nekk. Mhm. Euh, benn bi may wax mooy. toujours euh, dañ naan nañ bàyyi garabu olof yi moo ñu koy jox. Mhm. te man loolu mosuma ko gëm. Mm, amul. la preuve en est toujours ma wax ko. tubaab yi ñoo ñu ko le waaw. te naan ñuy garab wolof naan ñuy garab wolof. <laughs> fa la ëppee de. fa la ëppee. machine yi sax ñoo koy defar dañu ko jaay. waaw <laughs> donc il faut kon ñu gëm gëmloo nit ñi. leen garabu olof moo leen ko jox donte mën na leen ko jox nag. mën na leen ko jox. ci ni ko la leen mën a joxe. waaw comme ni ko mën leen joxe mën na leen ko jox ci dose bu ëpp lay demee noonu. mais même scientifiquement li may wax ci scientifiquement. Mhm. ñoom nangu nañ ni seen yenn garab yi da koy joxe. d'accord les yenn euh, les yi. daf koy joxe. donc kon toujours nag buñ ko ragaloo nit ñi. ba ñu yaakaar ne garabu olof toujours moom day joxe rein non. Euh, du joxe rein yenn saa yi nga nit ku woo la sax ni la damaa bëgg a faju waaye damaa ragal garabu olof. man daal problème mu dialyse rein yi man man lekk gi daal laa ci wóorul. waaw. kese kon daal xam naa lekk gi daal laa ci wóolu. baax amu ci parce am na ñu koy am ñoo xam ne jëluñu benn gan. te mhm. dañ koy am. te dañ koy am dañ koy am kon man problème lekk laa ko gën nekk rek. voilà mhm. damañ ci def vidéo ngi fàttaliku defoon nga calcul Renault. Renault. Mhm. loolu jugul ci ay garab loolu en réalité say la jógee. lekk waaw. <laughs> yaa ngi fàttaliku. non xam maa baaxee. mel na xeer yu bari nekk foofu noonu. waaw non ci lekk gi la rek. bu yàggee kay mu buusee rein. yi loolu liggéey bi dootul. lekk la loolu waaw ay lekk la parce que sel yi nekk ci lekk yi ñooy accumulé foofu. Mhm. loolu ay lekk effectivement en réalité. te te te problème mu rein yi neexul ba neexul mais garabu wolof moo ci mën garabu tubaab ci faj ko. Mhm. là aussi il faut que reconnaître. filtre bi lañuy def. waaw waaw machine yi def dialyse. dialyse donc kon xam nga ni franchement. Euh, yàlla c'est pas fondé daal. mais scientifiquement prouvé wuñ ko. prouvé donc scientifiquement c'est vrai dañ koy wax c'est vrai donc bu ko défé nak mi ngi noonu kon du moko jox mais baxna ci rein baxna ci foie aussi. Mhm. donc euh, nit ñaar mën nañ ko mën nañ ko utiliser bu baax a mhm. secteur bo dem nak ñi ci nekk te ñu ci. Mhm. ñoy yeblu secteur waaw secteur bo dem ci mom secteur la nag. ay nit ñu ci jox di ci wut alal. ñooy yàq mm-hmm. ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy tuubaal secteur bi ñoo koy gàkkal ñoo koy gàkk ñooy def yëpp mm-hmm. tradipraticiens yi woo ñi koy wooye seen bopp mm-hmm. te jànguñu ko xamuñu ko mënuñu ko def ko ut kaay xaalis nit ku feebar xamuñ sa garab yi koy jox lan dañ jox rek <laughs> ñooñ ñooy tax presque ku eh. boo demee policiers yi laaj mille francs ci circulation bi ñoo tax ku nit boo waxee ñu la policiers yi corruption la nangam te policiers yëpp defuñu ko mais ñenn ñu koy def ñooy yàq Euh, kii réputation wu ñeneen ñi boo demee ci médecin même chose ñi nekk ci hôpital yi boo ñëwee ñu lay ñàkk kersa mm-hmm. comme xam nga ni ko nit ñi ko waxee ñu la hôpital boo fa demee nangam nangam mais ñi ko fay def ñooy yàq dem ñeneen ñi waaw <laughs> te lu ñëpp defuñu ko da ngay dégg médecin bu baax boo xam ne day mel nii da laa xam mm-hmm. nga dégg koo xam ne mun la romb du la nuyu des fois ngay koo xam day day ay malade dañ koy xaar mu ex du leen nuyu waaw ñoo ubbi borom dugg dëgg du leen faale boo defee nit ñi koo xam bu ñu koy xas dañ naan <laughs> médecin yi médecin yi kooku la <laughs> waaw ñëpp yow li waaw loo jël rek <laughs> jërëjëf Pape ñu bàyyi la nga ah, ngi ñëpp di ziar ñëpp. Eh, di def rek li mag ñi di wax rek Pape wax loo man def loo man boo tuddee nelaw. donc moo résumé affaire bi. Mhm. donc affaire bi daal noonu def loo man wax loo man boo tuddee nelaw. dafay yàlla ñu yàlla xeet ci njub. yàlla nangul ñu suñuy xeetu jaamu yàlla yépp moo xam suñuy koor suñuy sarax amiin suñuy naafe la ak suñuy jàng alxuraan yépp yu ñu def ci weeru koor gi rek yàlla ñu ko yàlla nangul su ko nangoo yàlla ni ñu ko yàlla fulandir. amiin euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa